Euh, kilifa gi ñu ngi lay siyaar. yàlla yàlla nangu siyaar jëwriñ ñu ngi lay siyaar bu wér. tey ñu ñëw ci kii dëj bi nga xamante ni moo di dëju Lobé ngeen ñu dégg nga ni yéen a bokkoon fu ngeen doon liggéeyee mu doonoon jigéen joo xamante ni jigéen ju jàmbaar la te bi ngeen yëgee nouvelle bi naka la leen def. waaw métti ñu lool te xam na Lobé moom ñu ko def nii euh, rey nañ jàmbaar rey nañ liggéeykat xale ku am jom ku am responsable ku ay mbokkam yaakaar moom lañ def nii tey kii grand bu ñu doon wax fii ba suba ci moom mënuñu ko mënuñoo wax ci moom lépp parce que ñoo daan liggéeyandoo ñoo daan ànd guddeeg bëccëg ñun ñuy toog nii ñoo daan ànd guddeeg bëccëg musoo xëy gis ko te gisoo ñu fu mu mën sa am ñooy taal suñu oto wala ñu taal suñu moto dem ci conteneur boobu bu amee ñun ñi ñooy seq conteneur bi jënd ko dem façon kii ngay message yi ngay gis noonu yëpp muy nekk si ñun ñii la daan andal ci yooyu fu nekk poste Thiaroye yi ba Dalifort fépp lañu daan dem ay kees fépp dañ koy dem di jënd ji ay bagages kon boo xëyee ñëw nouvelle bu mel noonu am kon daf lay bett waaw ñi def lii daal doy na waar trop waaw doy na waar trop. moom la ba ci lan la daan yëngatu. waaw da doon jaay pièces waaw jaaykatu pièces la place am ak sunu place yi ñoo dend aussi tamit kii toog taxaw nii moo ko jàngal métier bi moo ko ber. Euh, da daan jaay pièces comme ñun li ñuy def rek ñun ñëpp ay jaaykatu pièces lan ci loolu rek la ñuy yëngu. jàmbaar dëgg bala nga doon xam te jullite doon xale bu yaru jullite gis nga li muy jigéen suñu biir amul kenn ku ko mës a yab. bañ na ko ba kolam gi muy jullee chaque jour mu ngi cooto ci ci bi ginnaaw maal otoom ak si jaadam ak léppam. waxtu du ko raw wallahi bëgg ay mbokkam bëgg yaayam bëgg ay rakkam bien bu ne fu ne teg na leen fa ay mbokkam ay mbokkam ñoo ñàkk. waxum ñun man damaa jële la sax ñun ñun moom mënutu ñoo am ko mel lobe mais ay mbokkam ñoo xam ne ñi wéeru woon ci lobe moo bari te lobe xale bu ndaw la bu amee 30 ans ci la mais seen famille moo ko téye ci loxo ngir am jom am fulla gis nga tabas korité bu musaana jot nag cinq cent mille lay jënd yóbbu ko ci euh, jàmm gën nga mu dëkkoon yaroo fa juddoo fa yaroo fa ba ni mu tuxusee fii foofu la koy yóbbu ray ko fees ko toj ko ku ne mu jox la ñii di am ay dii ku la ku ne la. lobe nag bala maa wax moom képp ku dégg sama kàddu gi rek. bëgg naa nga defal ma ko fukki xulu ak benn. ñaanal ma ko yàlla yërëm ko te jégal ko ay baakaaram ci kaw suuf bi si njëkk ba bu si mujj. lobe li may wax moom du bari. parce lobe gaynde la. Lobé jàmbaar la nit ku baax la man maa ngi mujjantee gisante ak moom bi naan suba la Tabaski ma romb ko mu yuuxu ma woo ma daf ñu yóbbu comme Lobé amoon ay xarit jigéen ñu ñu ay xaritam te musuma ko cee gis te musuma dégg kenn waxal ko ko mais nag man bisu la bi démb wallaay lancim daf maa ñaaxaat parce que nit di nga nekk ak moom muy dundu doo ko xam mais daanaka boo deewee sax nga ngay gën a xam ay qualité am mais nag lii ki rey lobe wallahi rayul lobe rayul lobe dong de ñu bari la rey ay nit ñu bari la rey ñu bari la rey parce que lobe dafa am ñoo xamante daf leen employé di leen liggéeyloo am ñoo xam ne liggéeyloo wu leen sax mais daf leen a yor xam nga doon jàmbaar doon gane liggéey boo xamante ne bii nii boo doon wër Sénégal war nga képp pièce détachée poids lourd pièce avion benn jigéen la bu ko fi def muy lobe ñu seppi ko ci nii sànni ñaaw na trop te métti na te naqari ñu mais nag ginnaaw dëkk bi am na yoon te justice ñeneen am na fi na yoon def liggéeyam rek te kuñ ci jàpp ñu teg la daan yi ñu ci war a daan ñun daal affaire bi nu mu gën a gaawee rek ñun gën ñoo neex wax dëgg yàlla ndax ki ñu yóbbul moom kenn la si ñun te kenn mënut koo remplacer man daal li may ñaan daal bay ñaan mooy képp ku dégg sama kàddu rek nag ma ñaanalal lobe yàlla jéggal ko ay baakaaram bis njëkk ba musi ba si mujj def ko dee doon noflaayam lobe nag yàlla def samay loxo la commencé depuis 2006 2005 2006 ba ay 2015 ci laa ko ber mu digal boppam mu te ànd ak man ci dara loo xam ne si liggéey gëmul lu dul liggéey société bi itteewoo la social lim ciy def amul ku ko ciy def dëkk ba mu juddoo yaroo di jaamu gën Touba jaamu gën gee màggee fa lam fa man ña ay borom alalam fa am lu ëpp lool man lu ëpp loolu te defuñu ko fa waaw jafe na nit jël alalam lu tol ni 500 mille 600 mille jëndul nag jaxale bu ndaw rey tër ni koñ bi séddoo leen jàkka ji jumaa ji weeru koor wi tàndarma ji lépp mu def laytu xaral moo koy def. donc njëkk koy def 40 ginaar la ko booleel def ko def ceeb nangam sangam at mu gën mu dellu si. ñee ñoom lobe ñoom ñett ñuy ànd konti ne bu wàcc moom moo la fay juutu moom lobe moo la fay juutu ndax bëgg gi mu bëgg liggéey doon jàmbaar lam yàlla bëgg tànnam ma ko lépp lu ko nara dindi rek yàlla day faxas loola. da indi lii métti na trop dee donc dafa métti waaye ak deewin lii moom dafa ëpp état senegal Sénégal nag moom bu ñëwee réew mi réewum 95 pour cent musulman lañ ay jullit lañ kon war na noo war a mën a am doole. def lu ñu bëgg a def atëb ku rey rey dong lañ ci moccoo teg. ñi bëri sax ni sama yaay la tellement que nuñ mel foo ko gis rek maa ci wetam des fois sax danaa ma suñ xëyee ñu dem fenn man ko ah man comme xam ma sawru ma génn dama taayal doo ma muy mer man ko waa léegi kon da ngay mer bàyyi ma bu subaa nañ préparé ñu dem tellement que dañoo rapproché foo ko gis rek maa ngi fas ci wetam sama xarit sama yaay tey nga yëg ni dem na ak ci anam bi nga xamante ni moom la demee naka la doon def yéen ñi nga xamante ni yéen a sës ci moom. métti métti <coughs> métti koo xamante ni du mos a jug si mémoire a jug demee na nii nag nañ sant yàlla baax rek xam ne yàlla lii la namoon ci moom ndax nit ki moom boo jeexalee rek ngay dem keneen métti na trop mais nii la waroon demee rek sant yàlla bu baax sant sëñ Tuubaa bu baax a baax. Euh, ñi ngi ni ak koo xamante ni moom moo yor Lobé doon magam doon xaritam mën nañu sax moom mooy yaayam euh, soxna si ñu ngi lay siyaar. waaw ñoo leen di fay. Euh, tey nga ñàkk ku sosoon ci yow sa xarit koo xamante ni yow yaa ko yar bi ngeen yëgee nouvelle bi ak ci anam bi nga xamante ni moom lañ ko jëlee naka la leen def. ñun koy waxuñu sax nouvelle bi waaye ba ñu yëgee ne rek dem na fanaan siwul ci lañ commencé jaxasoo nekk beneen nit ba ba ñu yëg ne affaire bi nii la mujjee. Hmm. kan moo nekkoon lobe lobe xale bu baax boo am jom am kilifa man maa ko bu nangoo liggéey xamul lu daan dooleem te lu mës liggéey ay mbokk ma ko lekk. teneem boobu bu ko solee lundi balaa mu ko summeeti samedi ci guddi la wala buy tëdd la koy summi gis ngeen photo mi yëpp te tenue da ngeen gis muy koy sol ku amul jom du def loolu ku amul ngor du def loolu loolu laa ko xamal. ñu gis ni dafa nekkoon jigéen boo xamante ni foo ko fekk day retaan day kaf parce que vidéo yi ñu gis yëpp loolu la ciy wane. waaw day na kaf dina ree waaye bu fulla jotee mu def fulla bu ngor jotee mu def ngor bu jom jotee mu def jom waaw loolu la dina kaf dina ree waaye dina liggéey te am na jom waaw noonu la noonu la nekkee woon. yow lan ngeen di xaar ci ci nga xamante ni ngànk kaaraange réew. xanaa rek ñu def seen liggéey rek comme nañ ko daan defee wóolu nañ leen daal jox leen confiance ñu ngi xaar ba xam fu muy mujjee te dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla gaaw nit te mu ci ni mu gën a gaawee lu ci war def ko ci loolu rek la ñu ñaan yàlla te yàlla na xëppee ja àjjana yàlla rëcc lu mu doon def ci àdduna lim naan def ci lu baax yàlla na ko fekk ci biir bàmmeelam ñun ñi ci nekk ñooy ut suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm di jóg daan di xeex ba yàlla indi li ñu am ñu yor yi employé yor njaboot war leen dundal léegi nga war a ñu war laa wax conteneur nga war a départ dem war a yóbbu ay millions léegi ñëmatoo ko mënatoo koo def ñu wala kaay liggéey mënatoo liggéey nga wàcc war a ñibbi dootoo mën a ñibbati léegi kon nit di liggéey pour lan la da moo tax nit di liggéey pour teraanga la boo liggéey ñu ne yaa fas as gor du ñaan te boo liggéeyee ne ko ci ne ko ci sécurité loolu baaxul. est-ce que est-ce que moom Lobé amutoon ak kenn problème parce que jëf ji ñu ko def dafa doon jëf ju ñaaw. non ñaaw na trop mais mosut am ak kenn problème parce que moom du am nit bor. lu ngeen wax yaag moom lu ngeen jubóo yaag moom fi mu taxaw fi la koy fay bu matul bu matul bu daay million la bu matul lee dana la madam te ñëw bu ñëwee ñëw fay fay jël ba bagage am nit ñee ko amel waaye du la amel bor xalaatul loolu du amel nit bor lu mën tool bu ko mënee da gën bu ko mënul bàyyi mbaa bu ko mënul liggéey dañoo gën mais du amel nit bor amoon na borom kër. musul am borom kër soxlu saxoon loolu dund sax loolu musul am borom kër dundut loolu dafay 22 heures mi ngi ci kër gi na. nag moom mën la ko may mbaa million waaye doon nangu ñaar dërëm moom nga moo gën nga jël ñaar te ni mu deewee ci xare xeex ak moom loolu la demee waaye nag état moom mesure yi mu war jël li ci Samba wax rek laa ci dolli lii wër na àdduna di masoo rek nit ñëpp di jaale yaayam ji nga xam te ne fii mérito na leneen ci kër gi dudu lii na yor njaboot yàlla sepp ci benn doom joo xamante ni si jàmbar la joo xamante moom la ñëpp yaakaar yow mi yaayam di laa jël dem ci ay nijaayam mu nijaayam boo xam léegi la nga yàpp ci oto yóbbu ndax dafa daanu ndax ni doon defal xalaat na ni est-ce que dina defal loolu fii la daanu léegi ñu yóbbu ak ñoo xam mënu noo wax am ñoo xamante ni ñëw ñu fii parce que bu ñu fi ñëwee ci ki nga xamante moo di Lobé mi nga xamante ni moo génn àdduna tey bi ngeen yëgee ni Lobé génn àdduna mais ci anam yi mu génnee doon anam yi nga xamante ni yu leen gën a la naka ngeen métti rek métti métti moom mënut a weesu metti métti na ba egg ci torop metti na torop metti na torop depuis lundi bi ñu waxee ne lobe dafa liggéey wàccul ba léegi la suñ àddina tukki ndax xamoon nañ fu ñu ko mënut a gisee duñ ko gisee xol suñu xol bu sedd ndax dafa responsable responsable boo xam ne du kuy yendu àll bay fanaan àll fu mu fanaanee àll rek dañuy xam ne lii boo moytu sagu dayewu ko man maa ngi dëkk ba Mbuur di yaayam nag di xaritam di léppam mu bëgg ma fonk ma respecté ma lu ma ko ne defal day def mu ne ko bàyyil day bàyyi du hésité sax am jom rek nangoo liggéey depuis bu muy xale def mécanique ba am ay diplôme am nekk si terrain bi jàng terrain bi yàgg cee liggéey yor ci ndey yor ci bàyyi nag xeetu nday xeetu bàyyi ñëpp a ñàkk waaw loolu moom mën liñ ci mën a wax daal mooy perte la daal perte bu rëy la seede yëpp doon benn maanaam mu nekkoon jigéen koo xamante ni ku jàmbaar la woon ku jullite woon koo xamante ni liggéeyam rek moo ko ñoroon loolu lan moo ko waaw loolu de xam naa li ko may éducation bi ci la base bi base bi waaw ndax dafa judd ci farata si yàlla ak sunna si Muhammad am ay waajur yu baax yaayam di jigéen ju baax waa liggéey rek daan dooleem toog biir këram dëggal borom këram ba yàlla may ko nii mu futteeku woon na xataraayu rek ngir teral waajur soo waxee mu ne yaayam yaay bul àbbi bul leb bul ñaan yow rek yaa ma tax di liggéey bugguma dara teral la rek sama mébét rek mooy dugal la ci kër gu baax yóbbu la màkk yaakaar ju tas dëgg la daal. ngeen di xaar ci ñi nga xamante ni ñoo yor justice réew mi. ah justice réew mi de comme liñ daan xaar ci ñoom rek kon ñun ñoo ñooy suñu ndëgër laañ saay buñ jaaxlee bu ne si ñoom lañ jëm ah delloowaat nañ leen si mbir yi rek comme ñoom ñoo ñu gën a xam liggéey bi. ñoo ñu gën a xam li ci war na justice def li ci war rek waaw lépp lu ko ci war daal ñun ñu ko ci xaar di ko si yaakaar ñun ni ay bokkam bëgg nañ yàlla leeral lépp daal parce que métti na trop métti na trop c'est une grande perte. tey waajuram bu jigéen ak waajuram bu góor ñàkk mais nee nañ ma fi nga xamante ne foofu la dëkkoon si jàmm gën ma nga fa doon def ay action yu nga xamante ni affaire sociale lu naaj est-ce que ñooñu aussi tamit kenn gën leen a perte. waaw déggoo comme li ma la wax sànq rek nee naa la Lobé Ndiaye ki ko rey. société la rey reyut kenn nit société la parce que li bootu woon si ginnaawam dafa bari boo lekk du si ay mbokkam rek moom moom mooy loon dafa social dafa généreux day joxe rek moom lépp lu mu yor da koy joxe dencalut suba dara lu mu am rek bokk na ko jaamu yàlla yi depuis nag ba muy xale ba léegi tey rek lañ mës a am ci moom lu ñu naqari nag tey rek tey rek sa korité suukaru ñëpp lay jox suukaru koor tabaski biir ay xar la jënd si sédd la joxe wallaahi lazim mais nag xam nga nit ku mel noonu doon jigéen di daan doolem jigéen dafa néew doole man daal li may wax mooy maa ngi ñaan état Sénégal lii ñu jóg ci tax na ñun liggéeykat yëpp kenn ñemeetul tax na ñun liggéeykat yëpp kenn ñemeetul te képp koo fi gis ci ñun ñii ay xale yi ndaw lan ku ci am 30 ans ay quelque ci nga yem te ñun ñoo yor ñun ñooy suñu soutien famille ñoo yor suñuy famille mais ñemeetuñu ci dara gis nga kii tey ñu rey nii ay bokkam jàkk nan ko daal li ñuy ñaan mooy police di gendarme na ci ñëpp jàpp lii dañuy ñaan yàlla Macky Sall jot ci moom def ci lu ci war parce que lii dafa ëpp te képp kuñ ci jàpp yoon def la ka war parce que lii ëpp na xale bu ndaw nga ray ko jamate ko takk ko yeew ko lañ def dugal ko ci saako sànni ci koo xam ne defu la dara su cee def famille boo xam ne koo xam ne liggéey rek ko tax a jóg nga def ko rayin bu ñaaw boobu lobe ci lënd bi gise nan lënd bi mu déparé noonu noonu gise nan ñuy tooñante parce que man ak moom dañoo yabante wallahi azim grand bu mu la envoyé message yi mu mujjee envoyé rek da nga naan déedéet mais nag sant yàlla xëy na suñu borom nii la ko bëggee metti na trop nag tey yaayam jële yakaarul ku dul moom ay magam yu góor yaakaaruñu ku dul lobe wallaahi azim ay magam yu góor yaakaaruñu ku dul lobe koo xam ne xale nga say mag sax yow lañ yaakaar waaw loo mës a wax rek mu ne man aw ma lu dul samay rak a wax mu ne aw ma lu dul yaay non affaire yi day na waar daal grand ñuy lobe moom mënuñoo wax ci moom parce que dañoo dund ak moom ci xale